jaa ngeen jëfati mbokk yi wéy ànd ak ñun di ñu seetaan boole ci di ñu déglu ci seen chaîne YouTube Bio Rahma ñu daal di ñëwaat rek indiwaat beneen huile bii mooy huile collagène huile collagène dafa di huile boo xam ni daf lay dimbal di la xeexal lépp loo xam ni ngaañ-ngaañ la woo xam ni mën naa song der wi ndax nit rawatina jigéen à partir de trente ans environ dafay ñàkk lu mat 1 pour cent collagène ci fukki at yu ne loolee nag li ko fësal wala li ko biral mooy dermatologue bu mag boobee tudd Nina ci livre googe mu bind muy une peau en pleine forme wax na ci lu yaatu jëm ci wàll woo te ñoo sax xamal nañu sa wane nit ci jigéen ci sax bu duggee ci menn ménopause bi sax ci lay collagène bi di gën gaaw jeex moo tax muy commencé dem ay chute commencé di gis ay bouffées de chaleur commencé gis ay apparition lu mel ni ay rides ay réew ak yeneen yoo xam ni daanaka da koy perturber ci dund dundam ci wàllu deram moo tax nii naa di dermatologue xamal ne nit ñi nañ koy faratal di ko jëfandikoo di ko diwoo baax na kon mbokk mi huile collagène nañu noonu huile la goo xam ni soxlawul sax nga koy booleeg sa diw utiliser ko nii booy tëdd nga diw ko su dee da nga dugg ci ménopause dina la dimbali noddanti say cër soo amee fanweeri at wala ñaar fukki juróom de ko diwoo saay booy tëdd ndax dinay tax maintenir sa sawu der ba nga mucc ci lépp loo xam ne daf koy agressé 77 244 98 05 mën nga ko am ci ñu euh, Kaolack mën nga ko am Diourbel mën nga ko am ci région yi Touba Thiès bu dee Ndakaaru mën nga ko am